waaw parce que aussi y ko beaucoup de confusion ah dama dégg euh, temps yooyu gars yi doon wax ne. Euh, général Moussa Fall wax na général um, kii gendarmerie ñu jëli Ousmane Sonko. Hmm. c'est-à-dire euh, gis nga bu ñu nekkee ci matière procédure judiciaire policier ak gendarme yi nga xamante ni ñoom ñooy agir. Hmm. ñooñu dépendre tuñ ci intérieur ak gendarmerie mais du procureur comme OPJ officier de police judiciaire. alors ñooñu noonu ñoom ñoo am sañ-sañ pour man opération bu ndaw la. même bu Ousmane Sonko waroon jógee cité kër góor gi dem tribunal loolu warul mën a të les force de défense et de sécurité ñu def ko ci anam bu gën a euh, mucc ayib parce que effectivement le doyen Albert a raison de dire que ni un acteur politique moom foo ko woowee ay ñooñam di leen jóg. Hmm. ça ça a toujours été comme ça. Hmm. donc kon euh, rien de nouveau sous le soleil maintenant. Euh, jóge fii dem foofu noonu mais tamit gérer la sécurité euh, dans la salle d'audience parce que foofu tamit euh, effectivement moindre euh, dérapage ñu évacuer salle bi le, le juge peut euh, juger à huis clos donc kon euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor défense Sonko nañ ko permettre Ousmane Sonko lui aussi lui lui à personnel je pense que ni responsabilité mi ngi ci parce que boo wootee gars yi ñëw nga bëgg a jël ci yenn itinéraire yi non doo yëng loolu moom c'est c'est ce n'est pas possible du tout euh, d'autant plus que la convocation qui n'a pas bu yegseegul ci Sonko tamit aussi il faut le dire. Sonko moo ko wax de. ah moo wax Sonko moo ko c'est vérifié. oui oui oui jotaguñ ko. jotaguñ c'est vérifié que jotu ko euh, je suis formel. donc pourquoi il veut aller au procès moi j'ai j'ai pas compris wala boog man maa comprendre. justice en fait non non non. Euh, tey jii nii comme par exemple ces avocats ñëwoon nañ la fois passée. pourtant jotuñ convocation. mais ñëw nañ gis nga les Ciré Clédor ainsi de ñëw ba ci foofu ne la. doon mais bu dee moom jotul convocation te ñëwul lan moo ko ci mën a fekk dara du ci fekk. non c'est xam nga buñ ne exécution d'ordonnance de prise d'accord par exemple. Mhm. dañ ne ordonnance bi mënuñu ko exécuter parce que l'ordonnance de prise d'accord existe déjà c'est déjà décerné moom ak ordonnance de renvoi ñooy ànd mais mënuñu ko exécuter exécuter sauf moment bi nga xamante ne convoqué nañ la par voie administrative wala greffier du tribunal. nga ne sans motif valable du ñëw bu boobaa dañuy exécuter l'ordonnance de prise de corps wala si juge le juge euh, apprécie xam ne nécessairement dañ la war a maintenir en détention mais ba nii may wax Ousmane Sonko jotagul convocation et que amoon na avis suba dañuy demander euh, le renvoi